ma sadd bayit yi tey woote bisub seex jiili bul wuute ñëwal nag mel ni kuy rooti ci teeni ngërëm yu dul jeeti ñëwal ngir sàkku loo bëgg am ci yéene ji sell ànd ngëm bisub yërmande waa ji ko xam fu ñuy wooteeti gis kooti borom bis bii di sunu ilimaan ju màgg ja lool bari kiimaan te doon ko rafet le ay melokaan ba tax ñun diine naw kooti ku ñëpp nawoon la ngir dafa doon ku teg tànkam ci ngën jiw yoon ku wéetal yàlla dëgg la woon te sopp yonneen ba roy kooti melaw seex bamba moo di melawam ba waa ji ko gis ni kii day moom di yëmbuur yàlla mii di hakiim ki tax duñu gis ci moom wuute bisam bee jub si waaju ci ñëw na taataan am na niir yuy taw ku teew làq yi njariñ na ñëw ñëwal bul wuute bi woote waxal seex mustafa suñ seex di nee loo wax de mooy la mu wax te donga yi yëpp a marsam ndox danga doon toon bi roote asalaamaaleykum bokki taalibe yi xam ngeen ni noo ngi fii ci pàkk bu sel kër goo xam ne gii ku mës a tiit baa nga jàq boo duggee sa aajo faju na noo tey ci kër Cheikh Abdou Khadir yilimaan yi doo moom doomam ju baax ji sëriñ Cheikh Mbakkeem Cheikh Abdou Khadir dem na ca Cheikh Mahamadul Muntaha mi nga xam ne mooy sëriñ Touba di Cheikh Abdou Khadir ci moom di Cheikh Mamadul Bachir ci moom laaj ko ndigal mu jox ko ndigal ci bis bii mu teg ko ci loxol sëñ Moustapha moom Cheikh Abdou Khadir mi tok nak rakam ju bax ji ànd ko bokki be ak mbakke bokki Cheikh Abdou Khadir ken desul nu tok war leena fatali bi Cheikh Abdou Khadir bi nga xamni li fi jaara fi jaar ku ne don ñaan kagn la ak ban bis la ñewna ñewna ci na mu da ñewé ñetti fan ci wéru tam xarit bis ba gëné jamono te serigne touba waxon mam cheikh ibrahim jeexal say jéego ba ngay dem ba ba ngay ñëw ko dajel jéggal nañ la ngeen diko laaj bis bi ñëw na altine le premier août incha allah bi di njëtti fan ci weeru tamxarit Cheikh Abdou Khadir nag kenn du leen ko fàttali kenn fàttewu ko waaye ñu di leen ko soññi mooy jaamukatub yàlla ba xanaa dégg ngeen ministre Serigne Lamine Diop la mu waxoon ci moom ne booy dox ci àll ba penku réer la boo séenee Cheikh Abdou Khadir kabaral mooy penku Cheikh Moustapha nag toog na indi nunu bagaan ya mu bëgg كنيو إندي كتاتن كو شيخ عبد الخادر دويل لكو بغان يب نو ني واج بيس بي كون ما يكتي سما كادو جوكو سن مامون بوسو إمام مو أبيل سن مصطفى نو نيب نو عند ديغلو الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد بآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nii ñu fi daa toogee rek di wax wax ji nu daa wax ci bisub ku tedd kii nga xam ne mooy Cheikh Abdul Qadir Mbakke imaamil murs imaamil imaamil muridin wa taqiyuhum wa xaafiduhum wa wariihum ñuy toog ngir bis bii nga xam ne moo dellu siwaat ñu di koy yëgle di ko fàttali Serigne Moustapha dana jël kaddu jëmmal woote bi ni mu war a taxawee ñu xam ne jëmm ji moom nga xam ne moom la ñuy wooteel mooy ittaqullaha haqqa tuqaatihi wattaqullaha laallakum tuflixuun yaa ayuha alladina amanu ittaqullaha haqqa tuqaatihi nag mooy Cheikh Abdul Qadir ndax foo ko seen mu waaxu jëm njëriñul bindeef yi la walla ak topp yàlla mooy jëm ci sëñ Tuubaa rek tey gan ay bis bu mu mas jënal siyaare ji way juróomu tàddu woowu amul ci lim nekk ci kaw suuf lépp mhm. kon nag bisam bu agsee ñëpp danañu ko bàyyi xel danañu ko séenu danañu ko fàttaliku kon nag ñu fàttaliku ko nañ ko daa fàttalikoo ndax moom mooy jëm sëñ Tuubaa jam waxoon ci boppam ne lam an xu maalam yu fidi kenn mosoo ko seen mu jëm ci lu dul lu am njëriñ dem di xettali yi ko fi bàyyi ko mbaa ko feeñ ci jamono mu dem di ko joxe aw tur mbaa muy waaxu jëm ci jëm barabu sëñ Tuubaa bi mbaa muy waaxu di jëm ci bindee yi ngir xettali si leen baa muy waaxu ngir jëm ci topp yàlla mooy sa topp sëñ Tuubaa kon nag loolu mooy la max nu maa la muy firi di sëñ ba waxoon ci boppam kon loolu agsi na ci moom kon duñ ko guddal dañuy jox Cheikh Mouhamadul Moustapha mu joxe ndigal li na mu ko daa joxe. yéen mbokki jullit yi ñuy seetaan yëpp ak yéen mbokki jullit yi teew ci jataay bi yëpp ñi ngi leen di nuyu ci turu sëñ Cheikh Mbacké mi nga xam ne moo toogee ci jataayub sëñ Abdou Khadre Mbacké di leen nuyu ci aw turam. di leen dalal jàmm ci aw turam di leen jottaliit nuyóob ci aw ci aw turam di leen jottali nuyóob xalifa général di murit ndax jataay bii biñ ko laata amal nii <laughs> demal na fa boppam ba yëglu ni ab taalibe bi war a def bañ jox ko ndigal ci bis bi nañ ko màggal niñ ko war a màggale ba jot ko ci ndigal ci ci xalifa général di murit muy sëriñ Muntaxa ayyadahu llah wa nasarahu ginaaw bu ci jotee ndigal nag la wax ne nañ jot li ci ndi ci ci aw turam yëgal bokki jullit yëpp bokki taalibi yëpp bis biñ baaxoo defal sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke ñu xamal leen ne mi ngi doon ñetti fan ci weeru tam wi ñu jëm war a dëppoo benn fan ci weeru ut ñi ko yëgal taalibi yépp di ñaan képp koo xam ne ñëw nga ci la ci sëñ bi daali woon feex jooje te moom baatam doon baat boo xam ne dafa sar lu mu wax rek yàlla da koy saral dafa jëflante yàlla ba loolu ne yàlla ne wala xat sabaxat kalimatuna li ibadina al mursalina sama baat sar na ci yonent yi moom it yàlla jëflante na moom ba foofu la ne lu mu wax rek yàlla mën na yàlla da saral kon ñi ngi ñaan képp ci ñëw yalla dajale lak lolé loolee ñuy wut ñun ñep ndax yalla da wax ci alquran ni du julli di wara sak sàkk ak yermane yalla ko ñu ci moom la maxfiratun min allahi wa rahmatun xayrun mimma tajmaun li ñi di dajale lépp am njëggalu yalla ak yermane ko mo gën ci yeen kon nak lepp bepp bis bo xam bo fa demee yaaka fa njëggalu yalla yaaka fa yermane yalla war nga caa farlu war nga ubbi say boole ta tatan ndax woor na ma ni إن لربكم في أيام دهركم لنفحات بس بيشرب ألا فتحردوا لها تاتان لين سي باخ كون يالا نتي يالا ماي ني تاتان سي تاتان بور ياب يو اندك بوزيتيف اندك ا يينه اندك قصد الخير ناخ لولو كوكو ديف سي بيسام ناخ دوندم جيب مينكو كو جيهال سي فهل الخير اك نيه الخير اك قول الخير سي دوندم بيب سي لولو كو جيهال kon ku ku ñëw ci bisam loo ci sàkku ci sun borom mi mu doon liggéeyal waajuram wu tedd wi mu doon liggéeyal mën na la ko defal kon ñi ngi ci woo ñépp bay wuñ kenn ndax moom doon na jëmm joo xam ne ku maandu la woon te bëgg ak maandu ku ku amoon yér yërmande la ci nit ñi ku daa dimbale néew doole yi la ku daa rafetal jëm ci bokk yépp la ku daan nemm ko bokk yépp la it ku doonan nag koo xam ne eh, loo ko mën a def daanaka wax sax man bëgguma kenn ku ma jot li ci nit ayib waaw waaw suñu ma ko bañ de waaye ku ma def def nga ma lu ma naqari oh, dégg naa mu waxee ko noonu waaw comme li ma bëgg daal ku ma jot ci nit lu baax foofu la nekkoon kon doonoon na koo xam ne ku fiir la ci diineem nag waaw kooku jeyee ku ne xam nga ne ku fiir la ci diine diine moom du ci maye dara ndax noonu la ko yàlla bindee woon kon daal waxu saaral xawli innahu kaana mathalan raihan lissalaahi wa taqwa wal istimsaaki bil kitaabi wa sunna kon daal li ñuy jeexale wax ci moom mooy na ngeen xam ne misa ab ab ab royukaay la bu yéeme ci baax ak ragal yàlla ak jàpp ci alxuraan ak sunna noonu la ko yàlla bindee woon kon loolu li nga ci yéem. Mm. muy waajuram bi rek moom mi nga xam ne ni ko sëñ Modou Bousso waxee woon rek ñim waa këram ñëpp def na leen foofu moo kan nujoo mi man talxa minhum xiltahoo kaana sayidal axyaari ñoom ñëpp ñu ngi mel ni biddi koo ci dajeel rek bu la neexee ci waxtu nga ne moo gën ci tànniif yëpp te danga wax dëgg loolu ka leen ko def ka ko solal mbuum moom ka solal baatin ba ak jawhar ba ak saayir sa kooku mooy sëñ bi kookee nga xam ne nag am na mel ne mag mu daa wax sëñ la Seck la tudd mooy bàyyi sëñ Baye Sine Seck daane man de sëñ bi moo koy door a gis ca gànnaar dama yaakaaroon ne dama daa wax ne sëñ bi sëñ bi demagut ci géej gi bu ma ko gisoon dama koy wax ne ko ñëwal jébbali ci bii dëgg la ndax bi ma gis ci gànnaar bis musuma gis ko ni mel waaye bi ñëwee Jolof dama boo mënoon a wëri sëriñ bañ doon jëflanteel ci gànnaar dama koy wax ne ko ñëwal jébbali ci bii bi ñëwee mo moo na ci sét sëriñ ba ñon ci jolof ne ko ñëwul jébbalu ci bi dara ko def noonu la sëriñ non la sëriñ bi mel kon yalla nañu yalla yàlla dimbali taasuñu ci barkem ñi ngi ciy woo bokk julit yépp bokkuñu me bayiwuñ men mbokk bayiwuñ ben ci tarixa soufi yi ñépp lañ wo wooy ci yit jankati alquran yi bayiwuñ kenn ndax alquran ko gënoon ñor ci lépp alquran daf ko bëggoon diko déglu di ko firi nga xam ne firi yu bari jàppe naa ko ci moom danaa ci indi sax yenn yi rek teew ci sama xel nii rek an ana boo xam ne dañuy dañuy dañuy teg alxuraan bi nasullaaha fa nasiyahum mu daal ne nasullaaha fa nasiyahum fa tarakahum yàlla du fàtte noonu la ko firi mu leer la la koy firee fàtte nañ yàlla yàlla bàyyi leen ndax yàlla du fàtte yàlla nag day def boo ko fàttee mu bàyyi la hmm. fekkee naa yit mun a ina ina ana arsalna sayatin xalal kafirin te ussuhumoo assan mu ne te ussuhumoo mooy këyitloo daal ne axraahu wa xamala axraahu fiihi wa xamalahu alayhi mooy mooy yàlla mooy mooy fiir xiir gi la ciy xiir waaye loolu mooy këyitloo seytaane day ay gaayam da leen di jël di leen këyitloo di leen ñu caaxaan loo rek ñu ñu ñuy ñu ñu ñuy tàppe luñ ko indil bu subaa ñu indilaat leen dolli ci mu ne te ussuhum boo ko doon firi xeer la ko téere yi firee waaye yow dee ko fire kayit loo kayit loo ba <laughs> lu mu la naxee tey bu subaa mu naxewaat la leen mm. dolli ca la naxe woon nee na lool la seytaane def ñaan ak moom dégg dégg fekkee naa yéen mu ne mus jal mu ne alxuraan mu ne mu ne loolu wax na ko eh, mus jal <laughs> ak ak ak rek moo mooy daanaka li ma doon wax ci julli mu ne mus jal mooy luñ tënk mooy luñ boyal luñ joyal dañ koy firee ci woyal mm-hmm. muqayyad mooy luñ tënk mun am na yoo xam ne alxuraan bu ko indee mus jàll la ñëpp la ci yemale jullit ak yéefar mooy lu mel ni xal jisaa ul linsaani ila linsaani loolu mus jàll la waaye am na yoo xam ne nag da koo tënk jullit yi képp la jox ndigal loola sëñu leen a génn loolu mooy muqayyad noonu la daa firi alxuraan firi yu leer yoo xam ne lu mu ci noppi bu noppee da nga xam lu mu doon kon nag alxuraan jooju mu fonkoon addis yonent bi sallallahu alayhi ku ne xam ne ni mu ko bëgg yoon mm. alquran ji ñu daara fu daara ne ñu ngi lay mm. ñaan nga jàngal ko mm. alquran te sellal ko fu daara ne loo ci mën a teg ci salaatu ala bi fii ba bis ba muy biir réew mi muy bitim réew mi ku ne nanga daal tàmbali njàng mi boo déggee woote bi rek wëlëri yëpp nag ñu ngi leen di woo di woo taalibe bi yëpp yi ne ci biir réew mi ak yi ne ci bitim réew mi di ko yëgal waa commune bi liñ ci war a def lépp xam nañ ko nañ ko def di ko yëgal di soññi dongay murit ñooñu mooy ñi nga xam ñoom laa war a soññ li ci ñi ci des da ngeen leen da soññ. baax na yal na yàlla def lu ci waay yëngu. Hmm. yal na ko yàlla def muy jëf juñ nangu. lépp lu waay yëngu ci moom te defe ko positif nag bay ba nga rafet ci njort ci na man naa ne xamalan xaalisan maqbulan indillah yàlla na ko yàlla yàlla na ko yàlla teew ñun ñëpp nag asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. que noo ñaan yàlla bàyyi la fi. yaa sëriñ Cheikh ak njaboot Cheikh Abdou Khadir yëpp beesa beesalaat nga nu peq tey ñu jox kaddu gi nag sëriñ Bousso moom itam alaaji Bousso mu waxtaa mu wax ci turu sëriñ Siidi leeral bokk yi ak programme bi nu muy tëddee asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen xamal ne ginnaaw bi ndigal lu jógee fa mu war a jógee ci Cheikh Sidil Mokhtar jaar fa war a jaar sëñ seex Mbacke Cheikh Mouhamadul Mountakha jaar ci sëriñ Cheikh Mbacke muy xalifa Cheikh Abdoul Khadir jaar sëriñ Moustapha mi nga xam ne mooy jëwriñu kër gi tey jotaay bii di ba sëriñ Sidi bi nga xam ne mooy coordonnateur màggal gi kon ñu ngi wax ci aw turam sëriñ Sidi nee na ngi woo mboolem ñi mu feqal màggal gi yëpp mboolem bokk yi da tàmbalee ca bokk yi mooy maharam ka ca njëkk ba ci ci mujj nu ci waay nag ci ndey ak ci baay góor ak ci jigéen ñëpp la woo di woo mboolem taalibe yi di woo mboolem xarit yi di woo mboolem euh, soppe yi Sëñ Abdou Khadre loolu bu ñu ko waxee réew mi daj kapp taalibe yi murid yëpp dugg nañ ci biir moom amutoon ab settee ci murid yi mbokk yi itam ñëpp seen mbokk la euh, ah, soppe yi nag moom génn sax taalibe yi génn na sax ñu ñu dul jullit kon ñëpp ay soppeem lañ kon ñëpp sëñ Sidi mi ngi leen ci woo bi bis boobu la di woo mboolem ñi nga xam ne bii ñoom la seqal liggéey bi te mooy daa daayira yi nga xam ne mooy daayira yi ne ci biir réew mi daayira yi ne ci bitimu réew yi ne ci kër gi Ndakaaru fépp ñu ngi leen soññ kenn ku ne fa nga daa taxaw la nga daa def noonu ko def nu raw noonu ko daan def lu daal màggal daal wàññi ko amu ci soppi ko amu ci te yokk rek moo ci am ne kenn ku nekk daal doon def safali yéene mu yokkuwaat waaye bu ci dara dellu gannaaw ñu ngi soññ itam mbooleem ña nga xam ne bii dañ daa taxaw ci def ay xéwal di ko indi na si new ko ndaay mel ni waa sëñ Cheikh Bara ak waa këram taxawaay ba ñu ngi leen soññ di ñaan lépp luñ ci waroon def luñ ci yéene yàlla àggal seen yéene waa ko sëriñ Cheikh Niang Diaby ak sëriñ Seydou Niang mboolem bokk yi nga xam ne bii rek daanañ taxaw taxaw yi noonu ak sëriñ Galasmaane Mbàkke itam ak mboolem bokk yi nga xam ne daanañ taxaw ci mel noonu ñu leen soññi baax ñu leen ñaan kenn ku nekk rek la nga ca warloon def dinaa ko def yal na yàlla yokk loolu barke sëriñ Tuubaa di xam ne ne itam ne euh, ni ñu ko yëgal mboolem nag ñun seqal réew mi yëpp tam lañ président de la ak mboolem gouvernement bi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo la seqal réew mi mooy ñuy wut ak ñu am ba noppi itam muy porte opposition bi ñëpp ñu leen ci woo bawuñu kenn ndax sëñ Abdou Khadir ñëpp njabootam lañ fu ne am mu ngi woo ñëpp kenn ku nekk daal na nga ñëw la nga fa taxawee nga taxawee ko réew nag dëkk magal da bokk lépp loo xam ne li mbooloo soxla na ko wala aajo woon na ko ñu daa ko defal mbooloo soxla nañ ko ci bis bi itam kon kenn ku ne la nga ci war rek xam nga ko na nga ko a defee te xam ne nag ne ren dañoo am ay plateau spécial yu ci def yoo xam ne yi ñu ngi ko de waajal màggal gi mu nekk ñeenti plateau bu njëkk bi ñu ngi koy def alxames kër sëriñ Fallou Mbacké sëriñ Amadou Fati Gaye kooku ku ne xam digg boog sëriñ Abdou Khadir mu nekk ci Daaru Manaan loolu mi ngi nekk le 21 septième mois 2022 ci alxames ci 17 heures incha allah ñaareel ba mooy kër sëriñ Fallou Lo moom itam ñu ngi koy def gaawu si Fallou Lo ci sura gaawu lay doon le 23 septième mois 22 moom itam incha allah ci sura 17 heures lay doon incha allah ñetteel ba mooy kër sëriñ Sidi Abdou Khadir lañ koy defee moom ak avril lay doon le 25 septième boobu moom itam incha allah ci 17h boobu ñeenteel bi nag mooy plateau ci kër gi fii lañ koy defee moom moom mooy nekk moom talaata le 27 septième wa incha allah kon na ko ñëpp bàyyi xel ñëpp fonk ko baax a baax ñu ngi woo ñëpp di séntu ñëpp yàlla yàlla di indi ci jàmm delluwaat ci jàmm lépp lu fay ñaan ñaan yàlla ko yàlla nangu barkeb Sëñ Tuubaa jërëjëf. dégg ngeen sëñ sa wax ju rafet jox kàddu gi nag Cheikh Mourtala Mbacké mu sëñ Modou Abdou السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ني بوكي طالبي في تيوب دي جيتال تسيم نيو سي عمر المصطفى سي عبد القادر مك مي خامني مو مو في تيوب تيوب في سيرين شيخ دي وقت سي تورو سيرين سي دي مو سي عبد القادر مي خامني مو مو مو مو جيتا ماغال دي دي وات نك سي تورو سي عبد القادر مي خامني ني نك ñun danaka mën na né ñoo war la xassay jiitu ci liggéey bi hmm top ci ginaaw sëriñ ci ñi ngi soñi mbolam ko xamanteni da nga sëriñ ci ko xadir mo ci mën di sëtu muy goor wala jigen mag wala ndaw taxaway yi ya nga xamanteni ñi ko da taxaw ci magal gi ñun ñëpp ñu la xassay ando euh top ci ginaaw sëriñ ci ba ni ko sëriñ bi bëgge ñu défé ko noonu kon nak ñi ñi ñi wo mbolam ñi nga xamanteni ni ñoo bokk ñoom sëriñ Tuubaa ñëpp xam ne bi moy suñu bés mom lañ am lañ ci da def lepp it fas nañ yéene lépp dañ ko dañ fa seen yok ko way fa suñu yéene wàññi dara ñi ñaan suñu borom àggalañ ci ak jamm te mo leen luñ ci def lepp rek ñu adal ci ngeer mu señtu ba di ci sakku it bépp bo xam ne sëtu sëñ nga lu tambalé eh, tay tay ji ba kër mag magal gi ñew lo man ci jang alcorane ci sa jëmi bop nga def ko ko delloo ko ko njukkal. jigéen ak góor ak jigéen. mboolem koo xam ne mënoon nga ko sa bopp na ko def ñu ko mën a ñu ko mën a seq ñu seq ko bu demee ba àgg ca bis bu jege bee ñu dajee tëj ko nag ñu ngi ñu ngi gën a fàttaliwaat suñu laxasaay bu baax ci ak suñu taalibe ci suñu ginnaaw kilifa fas ci yéene eh, lépp loo xamante ni rek digal nañ ñu ko rek ñu ñu doxale ko noonu. ñu ngi ciy woo mi ngi ciy woo mboolem kun seqal sëñ bi ñëpp rek. bu ñu waxee kun seqal sëñ Tuubaa nag maanaam ñëpp ci leen bokk kon dira ngeen jëf yalante ak assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu jox kon kaddu gi seigne Mamour jassara ci turu fédération bi xam ne fédération Cheikh Abdou Khadir nun ñep ñu andando deglu ko. alaykum yéen wa fédération Kër Cheikh Abdou Khadir di moy talib yi nga xam ne Cheikh Abdou Khadir ñi ngi leen nuyu ñep di leen xamal ne suñu bis bi leen leen di nga xam ne ñu bisu magal Cheikh Abdou Khadir ñu ngi ci woo bokki jullit yëpp rawatina bokki taalibe yëpp di wax ci bokki taalibe yi xamal leen ne bis bi ñaari at a yoo xam ne defuñu ko nag ñu war koo def kon li war li war li defutoon ci ñaari di yëpp lu ko raw nañ ko def ci at mii kon ñun ñëpp nañ ko kenn ku ci ne xam ne amuñ lu may bis bi ñooy war a teeru gan ñi ñoo lay war a teral kenn ku fi ñëw bu mu tumuranke loolu nag fédération bi moo ko war a def kon nak ñu ngi koy loolu ma ngi wax ci touru Serigne Cheikh gumbale mi nga xamne mo jitu federation Dakar euh, ak ak wa Dakar ñepp ci turam lañ koy ci turam la ñuy defee fa waxtaan wii di xamal ne mi ngi soñu mbolem daayira bu nek Dakar xamal ne nañ ko waaj nañ ko daan waajee ak mbolé fu daayira nek ci biir réew mi ak bitim réew muy daayira Seydou Xaay yi nek italy Espagne amerique ak daayira yi nga xamne mo nek nekk Guinée Bissau ñëpp sëriñ si di nee mi ngi leen fatali bis bi neena nañ ko nañ ko waajal te fonk ko di soññ itam daayira turandoo si Abdou Khadir yi nga xam ne taxawaay bi ñu ci daan am ku ne xam na ko ci wàllu organisation bi yëpp itam ak ni ko sëriñ Moustapha waxee léegi moo xam ne mu ñooy doongee laxsaa yi nga xam ne ñoom bis bi eh, seen bis ku lu fa def ñoom lay dimbale ñoom itam ñu ngi leen di taxawaay nga xam daanañ ko am ci bi eh, ci ci kër gi ci organisation bi loolu ñu leen fàttali di fàttali mboolem daayira yi nga xam ne ñoo aju ci eh, fédération bi mais incha allah mbale bi danañ ko def àllarba maanaam ajjuma jii di ñëw di le 22 incha allah li ñuy daje fii ci kër gi ak ci mboolem barab yi nga xam ne njaboot seen bi xaati daje nañ fa ñu bale ko ba mu set wecc ngir teeroo ko gan yi waajalee ko bis boobu yooyu ñu àggee ba nga xamante àgg nañ ci àllarba ji nag di le 28 ci lañu daje ci bis ci kër gi baas lépp loo xam ne soxla nekk ci wàllu baas ñu def ko ñu ndax ci nawet la ñu nekk kon nag ñu ngi woo ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw ñu ñëw jàppale ñu suñ bis bi nga xam ne amuñ lu may moom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu Maam Mor Diatara li mu wax ci turu fédération bi ñu jox kàddu gi nag Serigne Djili ja mu wax ci turu turandoo yi nun ñëpp nu àndandoo déglu ko bismillahi rahmaani rahim barkab Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bokk jullit yi bokk taalibe yi ñu ngi leen nuyu bu baax te di leen ziar di yëkkati sunu kàddu rek ci turu mboolem turandoo yi Serigne Abdoul Khadir yi nga xam ne bis bi seen bisu bop la ndax ñoko tambali won woon sëñ nak ne na mbir yi ñett la li nga mom ak li nga bok ak li nga doonul dara li nak dañ ko mom kon ñi ngi yëkkati sunu kaddu ki tour seigne Cheikh Abdou mi nga xane mo nek ci bop bi di soññi mbollem fu ndo seigne Abdou khadir nek ci rew mi ak ci bitum rew ñi bok waajal baax sunu bisu ndo bi kenn ko nek fa nga daan bindo selil ba fa nek nga ma te joxe fa sa ngir waajal bis bi boko defé defee cellule bi nga xamné mo nek nekk Touba ak Mbacké ñi ngi leen soñ ñoom ci liggéey yi nga xamné mo moo daan taxawé tambalé ko ci mbalé mi nga xamné mo lañu la aljuma le 22 bu ñu xëyee ñu ñëpp ñu bokk rajo fii ci kër gi ngir and ko bokk talibé waccay magal gi it liggéey bi nga xamné ne ndey chef de xarit yi ñoo daan taxawé ci biir kër gi dara soppi ko ja tambalé ko ci liggéey bi nga xamné ne jitu magal gi ba ci bis magal ga bis magal ga ñun ñëpp ñu bokk rajo ci kër Serigne Moutouba Mbacké mom Cheikhul Khadim wéyal fa liggéey bi nga daan def ci jang alcorane ak qasida yéen doo ko fanaane ko def ko addee Cheikh abdou Khadir ñuy sukkandiku ci ndigal li nga xam ne moom la Cheikh Amadou Moustapha joxe ñu bàyyi ko xel ci ni nga ko daan waajalee fu turandoo Cheikh Abdou nekk mu jàng kaamilu alxuraan def ko addi Cheikh Abdou Khadir loolu nag benn kaamil la tàmbalee waaye lu waay man ci limu alxuraan du doy na ko def ñu def ko addi Cheikh Abdou Khadir te bi bu ñu déggee kër sëñ Mourtala ñu dégale ko jox ko jëriñ ya fa nekk incha allah kon ñu ngi ci woo fu turandoo Cheikh Abdou Khadir nekk bàyyi yuñ kenn wasalaamaaleykum wa di nuyu itam nak ci turu wa ahlu tarbiya yi nga xamé ñoo tarbiya wa ci sëriñ kër sëriñ abdou khadir di len soñu rek nan len da soññee soñé bi nak suñu sëriñ sax jàppale nañu lool muy sëriñ moustapha ndax dégg ngeen né tuduna na la laxasaay yépp loolu mhm. doyoon na ci waye nak li tax itam ñi wax dafa am yoonu da doxé moy jëmmé liggéey bi nga xamé ni ñoko yoron ci kër sëriñ abdou khadir nga xamné biir kees yi ñoko da sétal ci njëlbeen gi di setal ci mujj ga sëriñ Touba mbake nak waxoon ne nan len ci soñu ba kenn ku ci nek nga bàyyi ko xel ta fas ci yene liggéeyal serigne bi la ci tege mo ñu deen soñu ci ah adi yi daa joxe di dajale muy ahlu tarbiya bi seeni tek, ak social bi nga xamee ne dañ bir, def ci bir ngir di ci dimbulante ñu di sen xamal rek ne leen seen digal na nga xamee ni la ni la daa doxee dara da ci soppi ko wut lu wut njëkk fi mujj fi ànd ak yar ak i teggin te ànd ak sëriñ Afi so mi nga xamee ne mooy suñ njiit ne ci kanam di ko déglu lépp loo xamee ne dafa jóge ci sëriñ Sidi bu jaaree ci moom bu egsee ñu jëfe ko nañ ko war a jëfee loolu mooy suñuy wax mooy suñu jëf ñi ngi leen di woo ñi nga xamee ne dañoo nekk fi jege dëkk bi ñi ngi leen di woo réunion ajjuma ñu teew fii ci kër sëriñ Abdou Khadir ñi nga xamee ne dañoo ne bitim réew itam ñi ngi leen di ñaan kenn ku ci nekk ndaw la la ne ci sa kër moo xam sa doom la moo xam sa soxna na nga ko jox addi yi mu indi ko ajjuma loolu daal mooy soññe bi Serigne Touba waxoon ne nañ ko wax muy Serigne tubaa Mbacke bax te tam jóge ci Serigne Jiili Ndiaye mi nga xam ne ñun ñëpp mooy suñ mag ak ku mel ne Serigne Mbacke Jenn ak sëriñ El Hadj Ndiaye ak Serigne Afi Bousso moom yi ndax ñoom itam jàpp nañ ci daayira bi lool wéttali nañ ñu lool kon ñoom itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom guddal seenu fan defal leen feex ba li ñuy mébati sëñ bi di ko yaakaar lépp ñu defal ñu ko ñaan nag sering ah, serigne sidi mbacke mi nga xamne moy sun jewrin ah serigne mustapha ñi nga lay ñaan nga ñaanal ko mhm. aw fanam guddu tam wër ndax nit la ko xamne mi nga deglu ñepp xébut xalam kenn ta du sonu ba ko kon nang ko ñaanal bu baaxa baax ndam lum ci da am yal na ci am ren lu ko upp ci barke serigne abdou khadir ngeen serigne jidi jeng wax ji mu wax waye xana rek wax cheikh moustapha ko njabotu serigne abdou khadir ñu sant Busaak Mbàkke ñëpp ñu ngi ndoo di sant Cheikh mun Mountakha Mbàkke ndax sëñ Mountakha ku ne xam ne diggam ak sëñ Abdou Khadir waaye ginnaaw sëñ Abdou Khadir nag cër bi mu jox njabootu Cheikh Abdou Khadir gépp ñëpp teg na ci bët kon bis bii bis yëpp la moom de waaye bis sëñ Abdou Khadir moom génnul jibaam ma nga ca biir bis baa ngi noonu mooy bis suñu jàmbaar ja ka xam ni moo daa tudd doom yi du jullee ji néew yi dafay ordonnance wuuf njaboot gi kenn juyut xanaa dégg ngeen la ma waxoon sëñ jëli gànnaar ba mu ko joxee ñaari junni ni ko ku ñaan maram juuf moo ma ko jox ma nga njukki ne dafa ragal bàmmeel mun ko na dalal xelam jukkee naa ko fa kookoy Cheikh Abdou Khadir ilimaan yi teeg ba léegi bi mu fi nekkee ilimaan la bi mu fi jógee ilimaan la ba léegi mi ngi ci penku jumaa ji l'islam jëmu ko Sénégal yebul sëñ Abdou Khadir ku mu jur yar na la teg na leen ci yoon ku ñëw ci bis Cheikh Abdou Khadir alxuraan moo lay fay ak julli ak yitte yooyu lay kar fay la bis baa ngoog le premier la bu kenn manqué ñu xam ne nag bâche bi ci guddi gi xaarim géey moo fay fanaanee jàng ba bët set na ñëpp ñëw bis Cheikh du Khadir ku ci feeñ ci lu baax dootoo nëbbu